monsieur Guèye le fi ngay waxee non? ci laa lay pour benn question nan nga euh, xalaatee ce point de vue ci actuellement la manière dont on fait la politique euh, calomnie violence entre autres. waaw xam nga tey tay <clears throat> jot nañu def benn li ñuy wax rek ben diagnostic et ben diagnostic bo xam sans complaisance. -hmm. parce que tay man nañ né la classe politique en général dañu échouer bu ma ko waxee nag épargne ñu kenn. Ah si parce que politique en tant que telle mm-hmm. n'est pas une chose mauvaise parce que quand on l'étymologie politique mm-hmm. mm-hmm. je pense que même du point de vue religieuse du point de vue philosophique quelque chose de positif ndax euh, nu gérer askan à tel enseigne que ku ci di nga sa mais nga vertu kii les valeurs cardinales yi nga xam ne tey gisoon euh, euh, leader génnoon wax jamono ji nga xamante la tension politique était. effectivement euh... voilà donc kon politique bi euh, mën nañ ne la classe politique dañu xawa a xaw a échoué tuuti. loolu nag renvoyer ci li ma la doon wax sank muy la formation tay légui ku jóg ne politique mais ce qui est dommage ce qu'on a noté tous mooy manque de formation bobu tay moy indi yenn dérive dérive yi ñuy gis à travers les réseaux sociaux ak écart de langage yi nga xamné à chaque fois ñi koy sétlu ci sortie yi nga xamné yenn acteurs politiques yi ñi koy def di saga di calomnier di wax lo xamné wax bu ñaaw la je pense que lolu beaucoup ci këslaay réew mi beaucoup ci li nga xamné tay mom lañu xamé Sénégal buñu démé ba ay ndaw wala ay kilifa ay magu jëm mm-hmm. di wax sax bay wax wax ju ñaaw di ko jëmale ci ay kilifa diiné mm-hmm. wala ay kilifa aada je pense que lolu je pense que jot nañu toogaat ñu xol parce que ndëpp li ñuy wax ndëpp dafa jot tay ci ñi nga xam tay euh, ñoo politicien politique bi nga xam ni tay mom lañuy def légui nak lolu amna lu ndaw lo xam tamit dina ko ci seetlu hmm. parce que li olaf Njaay di wax rek lu bess mom bu amé ci kër hmm. lu ci bëri xam ne gan yi ñoko fa indi ah, ah ku mel le président Mouridiane Fada yàgg naa politique du tay kenn musuko deg ci saga wala wax ju ñaaw wala wax joo xam tay day day day day day day day dindi warma hmm. lolu je pense que yàgg nañ ko dama dem ba nit ñi dañu bëgg pousser nit ñi ci pensée unique ñom c'est-à-dire que li ñu xalaat loolu la ñëpp war a xalaat hmm. wax lolu la nit ñi wara wax fofu ya problème parce que li ñuy wax unanimité souvent c'est mais boo nee fi gi fii kan mooy war a nekk non gan moy ñii nga xam ne tout récemment la ñu commencé dugg ci langue politique gi mm-hmm. mën nañu cité waa Pastef xëy na du ñoom kese parce que am na ñeneen ñoo xam ne peut-être ñoom ñi ngi ci ñoom lañu seetlu léegi ku waxut li ñuy wax ñu ne la naa fekk nga te loolu je pense que c'est un problème parce que nit ki doone man li ma xalaat loolu la ñëpp war a xalaat li ma jàpp loolu la nit ñi war a jàpp loolu je pense que sax du xalaatu intellectuel parce que intellectuel li ñuy wax rek souvent. vérifier intellectuel li ñuy wax dialogue dafa bok ci li ñuy définir intellect parce que dialogue il faut ko dégg rek xamal né contradiction amna ku nekk indi sa idée ñu xol bu ñu paré ban idée lañ japp né moy li nga xamné moy di li gën. Hmm. mais nit ñoo xamné légui politique bi bo waxut li ñu wax ñu né la na fekk nga wala ñu sagal wala ñu sosal la wala ñu waxal la wax bu ñaaw loolu du politique la vocation d'un parti politique c'est pas ça donc là aussi nit vraiment il faut repenser la manière dont nous faisons la politique je pense qu'il y est grand temps parce que nous ñu continuer des dérives mais ne dérive mhm. tout récemment à travers euh, l'internet un gars là à l'étranger tabassé. pourquoi parce que mm. il était là lors de la venue du président Macky Sall à Paris Il na ñu nit song ko tabasser di saga di wax je pense que ñuy def en tant que suñu suñu sont yi nga à l'étranger parce que doo dem ci dëkku jàmbur. Hmm. mais attends di fa di fa semer ben genre bordel loolu ça se fait pas d'abord ben benn n'y a ñaar nit ki ngay jël di ko attaquer di ko pour lan pour ses positions politiques ou bien ses convictions mais ça pose problème. taille loolu day indiwaat lenn ñoom li ñuy yuuxu ci kaw naan injustice la bu ñu leen teg ñi ngi teg nit ñi injustice à longueur de journée te duñ ci bàyyi xel donc lolo aussi nekk na ay pratiques yoo xam qu'il faut bannir qu'il faut dénoncer d' accord monsieur euh, Guèye comme li nga wax sànq euh, dañuy rester ci dialogue bi nga tudd sànq président Macky Sall na dialogue euh, waaye bon certains certains certains ñi nekk ci biir Yewwi daal rejeté ku ci mel ni peut-être Khalifa Sall ak bëriwul minimum ñoo dem répondre ci dialogue national ban ban ban appréhension nga ci am nga ci def. xam nga man li gëm ci politique mooy.

fu mu jëlee réew mi yóbbu ko fenen fo xamné ne. ku ci mel Ousmane Sonko moom dafa japp né dialogue bi mu amul sens. wa xam nga xam nga lolu mom la xam nga Ousmane Sonko au Sénégal il y' a il y' a presque plus de presque dix dix sept millions d'habitants tay que mom mu dem ou baña dem teewul ay sénégalais. yo xamné tay droit yi am ñom mom lañu am ci réew mi dem nañ wuyu ji dem tok wax ak njitu réew mi parce que c'est ça la responsabilité tay mënoo ne da nga bëgg réew bëgg sa réew toll ni le président de la république voté nga ne duma ci dem parce que li ñi voté farce la man xam nga la gëm. Mhm. nit même bo andut ak mom bu la wowe ci kaa waxtan mais demal. tu mhm. défends tes idées. li nga xam ne yow mom nga gëm muy sa conviction profonde nga défendre ko ba ñepp dégg la parce que est trop dangereux en politique de faire ce qu'on appelle la politique de la chaise vide. tap tap scène.